benn message lay joxe te waa Team Marichou laa koy adressé Team Marichou bu Kër Diack bul seetaan épisode bi. muy yow Kër Diack jàmm bu ko sax faale toog leen seetaan bu neex leen xanaa du yéen laa am. Euh. mais oui Team na menacé de kon est ce que ñu wàcc Eva bi ñu yuuxu. Yes, hi ici c'est Fred donc euh, yaa gis ngeen séquence bi keroog euh, jote naa ak sama doom nday li muy doon sama gain sama gain mais bu problème mu xaalis taxawee moom wax dëgg yàlla damay fàtte ay xarit ak yooyu quoi entre nous sama gars donc euh, man moom takk yeeg lu jëm ci maani aw ma ci sab moo tax keroog may ma ko ñaari salaamaaleykum yéen naka ngeen gisee rajo looloo sama problème. naka ngeen ko gisee te mayeguma ko dara ba tey pareguma moom ndax war na maa fekk gàlle falaa ko war a gën a andilee ay problème yéen di ngeen bàyyi leen maa sama domaine di dana xam ne lu mu mbax ma danaa ko ñor amul benn problème ah asalaamaaleykum waa Instagram ah sama gars yi jega problème de problème am na cey Elena waa mais ki ne nag bii tii ti ngeen jàppale ma non billaay booy du duma ci génn ku si nekk jéeg mu mbëggeel nan lay def instant xoolal maa ngi doon tooñ pod waaye. Ah. hello <laughs> xiifloo xam nga ne dama la miin bëgg ma xiifloo bul weddi danga maa kiife mais su contrôle ma nangu dafa sama king jox la boo ma teewul doo amati bum la bàyyee doo ma gisati lum la yéene ma ëpp love